mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di bàyyi ngeen déglu audio bi ñu ñëwaat. mais Thierno Bocoum. Mm-hmm. dégg naa li ma wax. Mm-hmm. duma xas duma lii Thierno Bocoum duma ak moom mais Thierno Bocoum buy digle sangu na fekk mu ragg ba set. Thierno mm-hmm. Bocoum na lijjanti na wax moom deux cent millions yi ñu ko joxoon mu ne tekk noppi na wax ko ko jox. nga ne ñaata wax man ma ko carrément ku yaa ngi wax leneen de.

musuma ka tuddu fi dara musuma wax ak mom euh, xawma ko sax euh fili nak amna ay titre yuñ bindi na cenn bokkum wax na diw dara je pense que diw war na mun dem xol ndax cenn bokkum mo lool la wax wala mom la waxal ñun ci fuuta lañ wax parce que dem nañ fa tourner xam nañ fuuta lu fa nek euh fuuta daf ñu ñor comme sénégal yépp ñu ñoré fuuta tampi fuuta weli Fuuta euh, Maay loolu euh, pulaar la ken moomu donc si lolu lañ wax mais mosuñu ko tuddu fi dara lolu moy bu njëkk bi deuxièmement waxam ji wax ju leer la bu dëggu si si waxin vraiment wax na ak conviction ñun nak dañ ko jox occasion pour waxam ju leer ji muy ay tuuma yu mu suñu kaw wax ne euh, sax amna ay firnde dinañ ko jox occasion mu xamal ko Sénégalais yi léral ko Sénégalais yi

nee na yokk na si it ne lu ma xamal bëri na alors ginnaaw euh, sama diine réew mi Sénégal sama liggéey ak sama njaboot su dee xamal na ma leneen euh, dinañ ko jox aussi occasion mu leeral loolu tamit euh, dina am occasion bi ndax ñun demuñu dikkuñu suñu kër suñu liggéeyukaay suñu diine waaye tamit di dox di wax si farata boo xaman dafa jëm si réew loolu lañu xam loolu la ñuy def tous les jours donc lu mu xam xamal ñu ko euh, dinañ ko jox aussi occasion mu wax ko sénégalais yépp dégg ko mu leeral ko ñeenteel bi mooy du ma ne lu ëpp tuuru parce que ëppagul bay tuuru loo xamante dafa jëm si ay accusation moom xam nañ ne gisaguñu dara dégguñu dara waaye yéen ñëpp seen nopp yi temps yi war na booy si cern bokkum lii cern bokkum lële loolu temps yi la commencé ñi koy def xam nañ ñan lañ euh, ak lu luñ si luñ si sabab li ma bëgg a leeral rek mu mu leer mooy ginnaaw ba ngeen ba sénégalais yi xam kan mooy Thierno Bocoum parce que amatuñu lu ñuy prouver si réew mi amatul mënatuñu nekk fii di weranteeg wedde ak yooyu jot na rek ñu xam euh, ñañ ñoo ñuy tuumal ak ñañ ñoo nekk seen ginnaaw

comme yoon nag am na dinañ dem si yoon incha allah lum ñu may ñu jël loolu lañ si bëggoon wax ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp jërëjëf.